bokk internet Dakar Media TV xibaar bu bees la ñu jot léegi nii xalif général des Mourides mooy dalal njiitum réew Macky Sall foofule ca dëkk bu sell boobule di Touba bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu waa Seneweb joxe nag njiitum réew Macky Sall ci guddi gi nag la dem foofule nag ngir nag waxtaane lu xew jamono ji ci biir réew mi leneen la fa tukkee itamit dinañ leen ko yaatalaat Aminata Touré moo ngi ñaan ci njitum réew Macky Sall ngir nag mu daal di sauver ndaw lu fi jot a des Mimi Touré yemul foofu itam wax na ak Marème fay Sall mu set ci yaay bi mu doon wax ak jëkkëram bile di Macky Sall ndax li mu ko xamal mooy amul benn chef de l'État bu mun a xeex ak askanam jile kàddu moom la yëkkati ci conférence de presse bi ñoom waa FN4 amal tey jile Karim Wade def na benn bataaxal di indi gis-gisam ci situation wu Sénégal nee na ab njàqare la am bi mu gisee li fi xew fan yi ci ay yàqu-yàqu ak ay ñaawteef na ku nekk def ci xelam nag li ni mel mën na nasaxal Sénégal li tax nag tey mu sañ koo wax mooy mooy njëkk nekk nit ki nga xam ni ci wàllum politique ci atum 2012 dund na li ni mel maanaam pouvoir di éliminer opposant ndax ñetti atu kaso yoo xam ne juste su Sénégal ci ndogal taxawal gi fi nekk léegi teg nañ ko ko moo tax moom yeeyoo na ngir wax ak président Macky Sall ak Ousmane sunko xeex loo mënta indi leneen lu dul échec métit nakar la am bi mu yëgee xew-xew yi fi am ba waral fukk juróom ak benn nit ñàkk ci seen bakkan mu ngi jaale ñëpp di jaale itam waajuru xale yi ak di ñaan yàlla may tan ñi ci jot am ay gaañu gaañu tas yaakaar bi jeunes yi nekkee nag nee na lu muy comprendre la situation économique bi itam noonu yàqu-yàqu yi ba waral lépp lu ñu tabaxoon ci biir réew mi lu ci mel ni ay université ñu nar ko xañaat ay ndongo daara ay ndongo daara lu muy mettit la doomu Abdoulaye Wade bi mu ngi ñaan ñu delloo si xel yi xelam itamit nee na day dem si woy manifester yi nga xam ne lépp lu fi yàqu ñoom la waaye nag mu ngi woo classe politique bi yépp ñu jiital la waxtaan ak diisoo jox cër institution yi ni ko PDS mësa wone nguur kenn du ko fokkati ci ay bakkan yuy rot ndax 14 victimes ci atum 2021 ak yeneeni victimes ci ren gi loolu nee na c'est inacceptable et inadmissible askanu Sénégal nag moo soxla fu mu ne ni ab dal la ñu aar leen naataange ak jàmm lu ni mel nag duñu ko mën a am si ay xiiro ak ŋaayo rayante wala di xëpp suuf ci xal gi arrestation ngañ dem ba Touré nekkul xibaar bu wér greffier bi ci jëmi boppam moo ko weddi ci ab benn declaration bu waa Seneweb jot mu ngi ci xamle mu ngi ci jàmm te moo ngi dalal xel yi jot Jotna TV mi joxe woon xibaar yi nag mu ngi jéggalu ci njuumte boobu lay nga xam ne seeni source lañu ko jëlee ci jàmbaaxloo yi fi am nag vingt organisation association yu bokk ci société civile bi ñooy woo Macky Sall si ab waxtaan ngir ñu mën a génnee situation de crise bu Sénégal nekkee jamono jile nga xam ne ëlëmal na xel yépp xibaar bu tiis moo wàcc fële ca Tiwaawoon soxna Aida Sy di taaw ci Serigne Mansour Sy borom daara ji mu wuy ji boromam tey jile foofu la ca dëkk bu sell boobule di Tiwaawoon bu 14h jotee lañu ko jullee ci jumaa ju Serigne Babacar Sy laata ñu koy ropp ci biir mosale bu borom daara ji Dakar koy jaale ñëpp ak tarixa tijaaniya bi yëpp